إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala ñu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ñaan sunu borom mu dëggee dox ci waame xewal yonente bu bëgg saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu si waat nañ beneen yoon si doon keppaaru xam-xam si doon keppaaru saxaaba yonente bi alayhim salaatu wasalaam mbokk yi xam ngeen ni yàlla subhaanahu wa taala bi mu nammee wàcc ci kaw suuf diine ji di diine islaam def suñu yonent muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mu jëntalub yonent nekk gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ab yonent te nekk mu jëntalub yonent loola ci tànneef yi la bokk ndax wallahu aalam xaytu yajcalu risalata waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn gi ko yàlla tànnal saxaaba yi ñu nekk ñi ànd ak moom loola it nag nekkul par hasard rek nit ki bëgg a nekk saxaaba nekk ko waaye yàlla moo tànn saxaaba yi ñu nekk saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu yonent yàlla yi jàllee amul ci kaw suuf ay nit yu fi mës a jaar ba addinay tukki du am ay nit yu fi jaar lu dul saxaaba yi ñoo leen di gën wa inna saxaaba la hum ab hum afdalu min min min alxawaariyin ñi nga xam ne ñoo daroon yonent yàlla Isa ba suñu borom di leen tagg ci alquran di wane ne ñoom kat seen i cellaange ak seen ak mbaax moo tax ñu ànd ak jaamu yàlla bu sell ba di Isa qaal alxawaariyuuna naxnu ansaarullah ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede na ne saxaaba yi moo ñoo leen gën ñooñu nag mbokk yi ay góor lañ woon ak ay jigéen yoo xam ni toog di waxtaanee seen dugg dëgg dëgg ak waaru moo ci nekk fàttaliku laqad kaana fi qasasihim ibra ndax kat ku nit ki mën a toll ci mbaax ak ragal yàlla ak jubal jubantiku ak sellal ak dëgg ak nangul suñu borom ci def ay ndigle ak moytu ay tere kooka buñ ko waxalee dund saxaaba yi rek mu xeeb boppam ak foo mën a toll rek ci ñoom ngay copier ndax ñoom ñooy góor ñi nga xam ni laa tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami alsalat yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ñoom day suñu boroom moo leen seedeel ci téere bi ni seen ak yàllaa ngi ak nangul seen boroom yegg na ci commerce bu dox ak business yi addina yi ak yi nga xam ne mooy gàllankoor nit ci jaamu boroomam yooyu daawul dox seen digganteeg am ngërëmal seen boroom ak jaamu seen boroom la ko waral mooy ñoom fa ñuy xool dafa sori ndax yaxaafuuna yawman tataxallabu fihi alqulub wal absar wallahi bépp xol boo xam ni borom bi subhaanahu wa taala namm na ci moom yiw ak njub saa buy niitu ci dund saxaaba yi am nañu rafet njort ci moom ni bu faatoo dina am ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala la ko waral mooy doomu aadama jum mën a doon ci kaw suuf bu taxawee ci kanamu saxaaba yi rek daal di mën a gis boppam comme ni ma ko waxee ci darsi yi weesu ndax am xam ngeen saxaaba yi façon bu nekk ma nga ca woon ci ay ndaw ak ay mag ay góor ak ay jigéen ay nit yoo xam ne amoon nañ sax ay laago comme ni ngeen ko gisee ci suñu darsi yi weesu saxaaba yu dalil muy Amr ibn kon tey ngir sàmm liqaawul ahbaabi xatta inda al mawt ñu tànn benn waay boo xam ne dafay tës rëkk ci ki ñu defoon ci dars ba la weesu muy Abdullahi ibni Amr ibni Hiram yéen a ngi fàttali ko suñu dars bii weesu ci xayatu saxaaba naan ko nekkoon ci Amr ibni Jamuur Amr ibni Jamuur waxoon naa leen ni la moo papay Jaabir ibni Abdillah seen ak xaritoo dafa yegg ba yonent bi sàmmal leen ko bi ñu faatoo ndax xam ngeen ni keroog bi ñu faatoo yonent bi alayhi salaam dafa wax ana Amr ibn Jamuh ñu ne mu ngi nii mu nekk waa ji njool lool ca kaw mu ne ana amr abdullah ibn amr ibn sharam muy waaji digg doom muy papay jaabir yonent bi ni comme ñoom dañoo xaritoo woon ci kaw suuf dañ leen boole ci benn armeel suurandoo leen kon loola bokk na ci sabab yi tax ñu sëpp suñu bind waaye jëli waa jooju nga xam ne mooy abdullahi ibn amr ibn sharam ndax bi paase def naa benn njuumte maa ngi baamtu lu bari amr ibn sharam amr ibn sharam maam bi la abdullahi la ibn amr ibn sharam loolu ñu bàyyi ci xel loolu wax abdullahi ibn amr ibn sharam ak jaabir ibn abdillah la kon tur wi dëkk la abdu tur wi dëkk dëkk mooy abdullahi ibn amr ibn sharam waa ji mbokk yi kéemtaanu suñu borom la woon ko kadalika kullu saxaaba ba noppal sax xam ngeen ne yonente bi alayhi salatu wasalaam comme ni ko abdullah ibn masud doon waxee yàlla de moo tànn yonente bi waxtaara lahu asxaaba moo ko dalal ay saxaaba tànnal bi ko dalal ay saxaaba dafa seet ay nit yoo xam ni ñoo gën a tell ay xol ñoo gën a jub gën a jubantiku gën a baax gën a dëggu gën a gëm lañ nekk sunu borom tànn leen li soxbati nabiyi ngir ñu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xeer yi ñoo fi gën a sell ay xol gën fee jub gën fee dugg mu ne fa arifu lahum qadrahum kon war nañoo xam dëgg dëgg dayo bi nga xam ne mbokk yi saxaaba yi am nañ ko ci ñun ci bëgg leen ci fonk leen ci di leen ñaanal ah ak di roy la nga xamante ni moo nekkoon seeni jaar jaar yàlla subhanahu wa taala di sunu borom borom kawn bi xam ngeen ne dafa tànnoon saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu dar ko waaye ngir ñu dimbali ko ci liggéey boobu nga xam ne moom mooy liggéeyam sunu borom subhanahu wa taala kon tey ñoo ngi kenn ci jaamu ko ci këram yowoon muy abdullahi ibn amr ibn hiram sadiqu amr ibn jamoor xarit sigi na te xaritoo ji nag mbokk yi moo moo balaabal àllaaxira nag est ce que xam ngeen ne ay xaritoo yi am ci kaw suuf bu ñu wax ak àllaaxira du balaabal de al axillahu yawma idin baaduhum li baadin adu illa muttaqin illa muttaqin ñi nga xam ne ñoom ñoo xaritoo woon ci kaw suuf lépp buñ demee àllaaxira ay noon la ñuy doon ba mu des ñi nga xam ne seen ak xaritoo mi ngi lalu woon ci ragal yàlla xam ngeen ni xaritoo bu yegg ba yonent bi gadal leen benn bàmmeel suurandoo leen sallallahu alayhi wa sallam la may wane mooy ji xaritoo wóor na dëgg na amr ibn shabaab moom abdullahi ibn amr ibn jamoor kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar am fu mu toll woon ci jaamu ko ci xërëm ndax yéen a ngi fàttaliku juróom benn fukki at yoo xam ne dund na ko di jaamu xërëm xam nga ni kooku ba tuubee kon yàgg na ca lam doon def abdullahi ibn amr ibn shabaab amr ibn jamuur xam na njëkk a tuub waaye moom nag yàlla nattu na ko ay at yu bari yoo xam ne xelam mi ngi nekk ci lislaam waaye dugg ci lislaam maanaam deful benn effort boo xam ne dafay jëm si ci diine islaam loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo mi ngi màkka waaye ambassadeur bi ko nekkaloon madina ma nga fa muy musaab ibn umayr ad daa'iyatul kabir musaab di woote ba am am mbooloo ci madina moo xam ne tuub nañ dugg ci lislaam ndax xam ngeen ni bayatul aqabatil uula gara bi nga xam ne ay gaa yi jóge nañ madina comme yonent bi alayhi salatu wasalam daf doon daawa di woo nit ñi ci lislaam te it xam ngeen daawa lu am solo la ndax métti muy métti li gën a sedd sedd ci métti ci loolu ci daam ay nit yoo xam ne tuub lañ dugg ci lislaam nit ñooñu ñu sàkku ci yonent bi booyee la ku leen jàngal yonent bi yoon lii Musab ibn Umayr waxoon naa ko xisab Musab ci dar ci yi paase ci biir daawa boobu nag am na ay nit yu mu daawa yoo xam ne ñoom dem nañ ba commencé di pratiquer lislaam dëgg te biir mbooloo mooma am na ci ay nit yoo xam ne ñoom dañ doon faral di ñëw màkka di aj ci nga xam ngeen wax naa leen ko marraat wa karraat ne leen aj daanañ ko def bu njëkk façon bii ñu koy defee nag ak ni mu amee nag ak yonent bi def na ko sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy wax benn yoon la muy ajam bu siiw la wa il wa illa aj amoon na sax balaa yonent bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne ñoom nañ doon ajee bokkut ak ni nga xam noonu la ñuy ajee tey ci la waa yoon wax labbayka la tariqa laka illa tariqan huwa laka tamlikuhu la ñu daan jaamu xërëm yàlla wuy si naa la du ma la bokkaale kenn lu dul xërëm boo nekk baa wan ak ba te yaa ko moom moomaa leen kon kay wax dëgg yàlla noo koy bokkaale ak yàlla yéen tamit ne nee bàyyi leen loolu wax leen labbayka la sharika laka inna alhamda wa ni'mata laka ila axirha hunalika min at-talbiya kon yonent bi alayhi salatu wasalaam li nga xamante ni yabal na Musab ibn Umayr Musab tàmbali di woote mbooloo mu bare bare bare daal di tuub ci la Amr ibn Jamuh bokkoon waaye bàyyi Jaabir ibn Abdillah muy Abdullah ibn Amr ibn Shiraam dellu seegul waaye nag yàlla baaxee na ko nag muy sàcc di xool l'islam xam ngeen loolu day faral di am dana nit ñoo xam dugg ci l'islam waaye bëgg-bëgg bi mi ngi fi léeg-léeg sax nga gis ku ñu mën dama bëgg tuub damay nangam di di wax di wax nga xam ne kii bëgg na l'islam waaye am na ku tële ko gàllam ko daawa ka tigi nag day mel ni saxaaba ya ñu gisee ni nit ñi ngi waaj a tuub wala bëgg na ko wala ni ñu koy waxtaanee dañ koy fexe jege pour xëcc ko su ko defee saxaaba yi keroog dañu fekkee voyage pour ñëw ci Makka ngir daje fekk yeneen sasalam ci aj gi ndax booba aj la ñu joxanteeg moom ci ayyaamu tashriq muy fay sabat kii ni ko nañ daje barab sàngam te xam ngeen dañoo dañ ko doon làqatu comme ci nit nga bàyyi ci xel ni même bu jàpp ni mbir yi léppay feeñ déedéet loo war a dox ba yegg ca bis boo dawee yegg ca du baax balam ko woon a xam nga jëm jàkk ja rek samp saw xel sol say laal rek ne da ngay daw nga dem boo demee dara doo xam seen ci yàlla lu tax ndax dafa yoo xam ne l'islam dafa dox lu ba yegg ci sahaaba yi dañ leen bay ba digg xaati guddi gis ngeen bay abdul aqabati ula ci ay deux heures du matin trois heures du matin la sahaaba yi daje di yónnee ko kenn par kenn fekk joxante nañoo ko rendez-vous yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci loolu abdullahi ibn amr ibn shiram daal di ànd ak gars yi ni leen man kat damay ñëw pour fekki samay abdul aqaba ak taaliya muy ñaareel bi ci la gars yi joxante daje ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boobu nag tuubut waaye bi muy dem takk nay bagaasam war na gineemam waaye xamul woon ni ndekete yàlla subhanahu wa taala def na waraa al aqdaari ashyaa ci ginnaaw dogal ya suñu borom làq na ci ay mbir ndax moom xamul woon ni buy dellu si wat madina ci gaa yi yonent bi lay bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndekete yooyu nag moom xamul ni nag dina am lu jafe loo xam ne tey buñ ko waxee kéemtaan lay doon ci kaw suuf ndax yéen a ngi xam alquran ma kaana li ma kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min waraai xijab amul benn mbindeef lu dul boo xam ne sunu borom dana wax ak moom lu dul daf koy waxyu wala mu def xijaab muy kiiraay digganteem ak sunu borom ma ni ba mu def sàppay jaabir allahu akbar mbokk yi loolu rëy na lool ba mu def sàppay jaabir ndax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko wax bul jooy tabaay mu ne inna rabbaka lam yukallim ahadan sirahan illa abaaka suñu borom waxul ak kenn jàkkaarloog moom ñii benn kiiraay bokkul seen diggante moom lu dul papay jaabe allahu akbar loolu loolu man xabatun azima yaa la laa min xabat papay jaabe ànd ak gaa yi daal di ñëw Kaab ibn Malik radiallahu anhu saxaabi yu dalil mooy nekk li mu ni bi ñu génnee jëm ca aj ga joxanteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fukki fan yooyu ci fan yooyu nga xam mooy fani tabaski nee na bi ñu paree ci at yi ñu ngi ànd ak Mbaye Jaabir waaye gars yi ñu ne ah ñun liñ nar a def ndax wóor na kii moom du julit ba pare ñu nar a ànd ak moom ci sekkare yoo xamante ni ci yonente bi lañ koy jëlee sallallahu alayhi wa sallam gars yi daal di koy woo mu daal di ñëw ñu ne ko yow kat xam nga ni kat yow anta sayyidu min saadatina yow xam nga ne tàng nga ci sa dëkk loolu kenn du ko wees wa sharifun min asrafina wax dëgg yàlla kilifa bu mag nga loolu kenn du ko wees ah te mbir mii kat xam nga dañ koy nëbbule te kilifa am na yoo xam waru cee dugg ndax ëllëg gàcce la lay jural su fekkente ni lii boo ko fekkee da ngay siiwal sekkare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko fekkee waa ji ko doon jot na daal di ciy boole waat liñ naan dàq sa dinaar waxaale soxla mu ne ko ragalal yàlla bala ngaa bokk ci ma safara nekke kàddu googu nag sa waay jàmm na xol kon gis nga yàlla moo xam ban kàddu mooy jini gi ñu ko kilifa nga nag waaye moytu la bokk ci iyaaka an takuna xababan linnaari xadal moytu nga bokk ci matam sawara ëllëg kenn laa dugg ci l'islam mu commencé di intéressé wu di ko laaj ku dugg ci l'islam noo def kuy nangam gis ni ila axiri ma kona li ba ci la tuubee dugg ci l'islam gis nit ñun safal mën a doon def yéen defe naa yéen a ngi fàttaliku bay atil aqabati uula yéen tamit dafa boole woon abbas ci mbooloo yi abbas lan la ci yéen safala waaye waaye tuubul woon tuubul woon waaye gis nga gis nga yooyu yooyu yonent bi def propagande yu mel noonu mën nañ ko ci ci l'islam gis nga yu mel noonu moo ko toog ba keroog Badar la ubbu tuub ba bi ñuy yeewee Abbaas yonente bi tëdd ba guddi mu daal di jug saxaaba yi ne ko lu xew ba ngay jug mu ne xool ci sama bàyyi bële mooma teree mën a nga fekk Abbaas mi ngi ci seeni ñu ngi ko seeni muy onk rek ci lañ ko daal di yeewee gis nga yu mel noonu sabab la mu ñëw dugg ci lislaam yaakaar naa yéen a ngi fàttali ko sa Sumaamata ibn Usaal di ko yonente bi yeewee ca fa jàkk ne Sumaamata wal mu ne ko tuubuma dama lay rey mu ne ko boo ma reyee rey gor fiir ah xam nga def boo ma reyee rey gor fiir waaye gis nga ab daawakat ab daawakat mbokk yi kenn du ko gën a yeew yéen di bàyyi ko ba yeew ko ba ay fa julli ñi di julli muy gis muy waare muy gis muy nangam muy gis suba mu ne ko dana ko noo noo yeewoo noo xëyee te ëllëg sa mu ne ko la ma la waxoon dégg du ma ko rafet la ma la waxoon dégg laa waxaat suuba suubuma dama lay rey ba ma rey rey góor fii loo loo xëy mu ne ko la ma la waxoon dégg laa waxaat loolu ñetti fan yonent bi yeewu mu dem ba génn dëkk bi dellu si waat daal di tudd ko ci islam kon yu mel noonu gaaw gi des na daan daayees na ko def ngir ci xenam loo nit ki سيدنا عبد الله ابن عمرو بن حرام هذه توبه لك اسلم على يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم يونس بن تاملين اي كلمه في الانجيل ما الى ان تقل اثني عشر نقيبا قصه موسى ñu tànn leen fukki nit ak ñaar yoo xam ne yéen ñooy nekk kilifa yi yépp ñoom lay tax liggéey yi yàlla defal ko taw fiix bu bokk ci fukk ak ñaar yooyu nga xam ne ñoom lañu tànn nekkate boobu nag jaabir bin abdillah fekk na baayam a ko njëkk a tuub moom moo njëkk a tuub baayam jaabir moo njëkk a tuub baayam bu ko defee nag jaabir daal di am mbégte lool nag àndaat ak baayam ngir ñëw nag ci biir këram pour daal di tos nag kër goo xamante ni lislaam moo koy tey jaabir bin abdillah radiallahu anhu bi mu duggutee ci ci madina bokk na ci ñi gën a kontaan ca bis ba keroog amri ibn jamuux waxu naa nga amri ibn jamuux ci boppam bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñaar ñii lañ defoon te nee naa la moo ko njëkk a tuub kon amri ibn jamuux keroog dafa am mbégte lool moo xam ni kenn amu ko ci madina ndax it nag yàgg na fee am nag nekk ak sawaay ngeen ne ca la ngeen nekk ba mu yàgg defee nee rek yàlla wala sunna mu nekk guddi ya ngay nelaw xam ne ne guddi gi ci gën a neexu guddi mooy diñ la wax waa di fekk si na la mu kontaan lool انظر الى هؤلاء القوم لم لم kontaan est-ce que mooy almilliards wal malayin المبلية déedéet milliards yeeg millions yeeg ila axir ma hunalik déedéet waaye ñoom ngëm yàlla moo leen doon kontaan la moo doon fees seeni xol man loo leen mën a gaaral ci kaw suuf ni man la koo delloo lu dul ngëm yàlla jaabir ibn abdillah ak baayam di abdullah ibn amr ibn haram bi ñu nekkee madina bàyyi jaabir jaabir nee na sama bàyyi mayuma jàmm ndax yàkkamtee gisaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na guddi gi mu gisee yonente bi kenn dafayu ko muy waaj ngir ñëw ma makka pour seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la dégg ne jullit ñaa ngi gàddaay mu ne kon xaaral mu toog xaar lii ak yeneen ak yeneen kenn ku ca nekk ak lala praté ci ñëw yonente bi sallam xam ngeen ni kii keroog bu yonente bi dugg cee madina yaakaar naa ni kenn du ko gën a kontaan keneen koo demaat da ngay gis lu ko moo tax madina keroog bi yent bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam gis la boo xam ne la anas ibn malik doon wax mu ni ñaari guddee gi yoo xam ne ñaari vitamine yoo xam ne duñ ko fàtte bii leer na nañ bii ñuul na kukk keroog bi yent bi dugg see biir ma madina dëkk bi dafa leer nañ wa kayfa la lu dëkk bi duy def ba leer te dëkk boo xam ne ña fa nekk yëpp dañoo fanaanee kontaan de naka la dëkk bi di def ba du leer te yent bi ñu ngi andaale leer ak leer bi saxaaba yi yarewaale naka bi dëkk bi def lu leer te ñu fi indi fi nga xamante ni fa la ñuy wàccee wax yi bi léegi waaye garab bi yent bi faatale dafa mel ni dàllu dëkk dàllu di fa dikko saxaaba yëg nañ ci aw tiis loo xam ni kullu musibatin baada rasulillahi tahunu alayhim musiba ji mën a ñëwati rek fekk du faatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam metti ni jëwu nañ ca loola loolu ndaw ko doon wax bi yonent bi yeggee nag am Abdullahi ibn Amr ibn Hiram nag daal di xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolee ko sax boobu moom nga xam ngeen ni alxabibu maa alxabibi ila laxm ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jàngale nag ni sunu borom yoonal nañu daal di jihaad ndeysaan ci lañ commencé jar badr allahu akbar mbokk yi boo seetloo saxaaba yi nin mel maanaam pour nga xam leen dëgg dëgg dëgg doo am problème lu tax ñu mel ñu mel xam na ñun la la la la wax bi ibni munabbih waxoon wax bi ibni munabbih da doon jàngale woon yàgg benn benn ndongo ni ko waaw ñun tax ñu bañ a dee ndax ñu ragal dee mu ne ko xanaa kër gi nekk dañ koo defal bëgg ñu fay jóge fëte fan jëm defuñ ko dara ak wax dëgg fi nekk dañ koo defar ba mu jeex xam ngeen ni kër goo xamante ni dañ koo defar ba mu jeex doo ko bëgg jóge muy ban jëm dañ faa jëfal dara boo jëfal dara kay doo bëgg rek gis nga de saxaaba yi boo gisee ñoom seen àddina defarul ci woon dara seen àllaaxira lañ doon defar te xamoon nañu wala alaaxiratu xayrun laka min al ula te xam nañu àllaaxira kat borom bi subhanahu wa taala waajal na fa yoo xam ne mën naa jabru katru ki nga xamante ni moo ñàkkoon mboolem lu mu ñàkk ci kaw suuf noonu garab badr bokk na ci yi gën a siiw ci bàqay jaabir ibni abdillah mooy tàggoo ni moom bu demee bu mu dellu si allahu ak yéen a nekk ci ay xeeti mettit yooyee ku mu xalaat ba mën a di ñaan yàlla su ma demee bu ma dellu si billahi alayk anta wa ana yow ak man kenn ku ci nekk da natt boppam mu xool ngëm yàlla fi sa àddina toll kay ndax yow lu mel nii bu taxawoon pare nga pour dem tey ñaan bul dellu si yasfiru allahu fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yawma al ardi alayh yàlla rek moo ñu mën a suturaal waaye maa ngi yaakaar ni kenn ku ci nekk ci ñun ak sa noppi waay boo nattoon sa bopp li nga xam ne saxaaba yi wuti nañoo yow ka bu'di al mashriqayn ka bu'di al mashriqayn aw ka samaai wal ard darre àddina sabu leen woon luñ mën ci am nag dajeeg seen borom mu gërëm leen moo leen ko moo moo leen ko gënal moo tax it ñu am li ñu am radiallahu anhum wa radu anhu keroog badar papay jaabir ibni abdillah bokk na ci ñi def jaloore yu rëy rëy rëy ci badar ci façon xeex boo xam ni xam ngeen ni koo xam ne dangaa dangaa fas yéene sas xeer kii sa kilifa li nga def ba def loolu loolu moo dalam papay jaabir ibni abdillah gis ngay badar jàllee nag yéebari màkka yi mer nañ mer moo xam ne wallahu bihi alim xam nga lu ko waral mooy premier combat bi ñu daje jullit ñi tawul leen ba ñandal leen seen i bàkkaar ñaareel bi moom mooy dañ faa rey ci ay kilifa yoo xam ni ñoo nekkoon bokk ci dëkk bi allahu akbar seen kilifa yi mag yëpp dee nañ xatal yonente bi naan saxaaba yi diw fii lay jee diw fii lay jee diw fii lay tëdd diw fii lay tëdd te nam ko waxee woon loolu la amee sallallahu alayhi wa sallam ah biñ fàtt bàyyi rek gis nga ñaari mbir bokk na ci yéenay wan ni yéefari màkk yi meroon nañ bi ci njëkk mooy prisonnier de guerre yi nga xam ne jullit ñi jàpp nañ leen te xam ngeen su loolu amee yéefari mën nañu indi seen xaalis ñëw ni ñaata ngeen di bàyyee ñu ne nangam ngeen ñu jox leen yéefari am nañ ko waaye nanguwuñ koo def lu tax nanguwuñ koo def dañoo bëggoon a wan jullit ñi ni leen meruñu fekk ñi ngi mer di denc di mer di lob di denc moo tax ñu bàyyi ma seen prisonnier de guerre ngir jàpp ni dinañ duma jullit ñi duma yoo xam dinañ ma sa nangu loolu kooku benn la man nga xam sama ñaareel bi moom mooy bi ñu duggee ci xeex boobu bokk na ci yi nga xamante ni metti woon na leen liñ ko doon préparé mooy dañ doon wax ni képp ku doon jooy tëpp néew bul jooyee noppi ndax bu ñu déggee ni waa Màkka ñi ngay jooy seen néew ya dañuy xam ni ñun kon affaire yi metti nañu ba buñ dee préparé buñ leen def ci stratégie guerre alxaar bu xudaa alxaar bu xudaa mbir mi boo yeewul dan lay yeew boo yeewul dan lay yeew de yaakaar naa yéen a ngi fàttaliku mu awee dafa ne Sufyaan mu nekkee bi yéebal jaar fii yonent bi jaar fee mu yëg ni ñu ngi koy dox mu ñëw ba ci fekk garab mu fekk fa neebaree gileen xoolal nu mu def dafa jël wàcc ci suuf jël neebaree gileen di xar ko xool lu ca nekk xamu Sufyaan allahu akbar mu xar ko xam nga lu ko doon xoolee mooy waa mag Madina seen seen seen numbrati gileem yi day lekk melee kepp ak yooyu yooyu mu doon kepp yooyu ñu doon jàpp seen gileem yi su su demee gannaaw kër boo ko xaree xam nga da nga ko ciy fekk te waa nag que seen i gileem du lekk loolu bi mu ko xaree gis cay fekk mu ngi lii gileem Muhammad la jàpp leen alxar bu ko dox ngir mi technique la waaye waaw ci yàlla nekk damay sellal jëru may làq dara dara dara déedéet ngir même na làqatu de même say soxla fii ci àddina istainu ala qadaai xawaajib al fitnaan wala gi ne nañ ko ñëpp xam ba nga jëm day egg raayatun saxiha akawen maanaam jël bi toujours gis nga taarix ak alquran saa boo koy jàng yeewu te àddina gii la la war a jural loolu moo tax nag ku xam sunna moo war a gën a yeewu ñëpp parce que yii yëpp ay xeeti mbir la yoo xam ne benn bu ci nekk am na njàngat moo ko war a jàng Jaabir ibn Abdillah nee na garab bi nga xamante ni Uhud ñëw na yéebari préparé ko préparé ko médecin lii nag nga xamante ni kenn ku ci nekk jël na matukaay yi jël yonent bi woo saxaaba yi ñu ne ah am na lu xew de ñu ne ko lu xew mu ni waa Makka préparé nañ dajeeg seeni noonu lislaam yi pour ànd pour dal ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam luy seen xalaat boobu tamit da nga ciy gis am solo diisoo ndax xam ngeen ne ku jibril di wàcc dina wax li yàlla wax bu amoon kenn ku war a mën a diisoo kooku lay doon ku jibril di wàcc di wax li yàlla wax kooku war woon diisoo waay waaye sunu borom mu ni déedéet wa shaawir ko fil amri diisoo la ci ñoom ah ñu ne ngay benn boo xam ne dafa jàpp ne mën naa demal boppam bu daf lay teel teel ba xëy jullootu ci kàmb léeg-léeg yonent bi day joxe xalaat saxaaba yi ni ko awaxyun haada ndax lii wax yu la mu ne déedéet ñu ne ko kon man na nga joxe suñu xalaat bu dee wax yu la wax amatuma xalaat ni gis nga ne foofu la asama wa taa yam yonent bi gaa yi ni ko ñun day déedéet li ñu xalaat mooy nañ génn dajeeg ñoom duma leen comme niñ leen dumaa woon ba dal yonent bi ne buñ dem nañ toog ci dëkk bi ndax bii kat damaa gént gént ku doy waar gént naa aw nag wu ñu reen bi aw nag wu ñu reen bi di ko xees ma géntaale ñu nekk ci biir mbubu koŋ mbubu koŋ mooy mbubu yi ñuy xeexee ñu nekk ci biir te xam naa ni kat mbubu koŋ woo ma gént madina laa ko tekkee te nag wee gën ci ñun nag daal di tekk jàpp naa ne bu fekkoon ni du woon du woon yëpp yëppaat yu am gaay yi ñu indaale dañ koy nekk ci xalaatam waaye boo fekk nag xalaatu xam ay jaabir gi ñoom mer nañ merum merum kontaan loo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax ñu bëgg a génnaat waaye am na ñoo xam ne ñoom dañoo sànte badar rek bu ko defee bañ déggee ni jaloore yi di jaay kat badar xam nga léegi nag ni gaay rek ñëpp ko léegi loo xam ne ñëpp ko waroon na bokk gaay dem am ca ndam ñu dañ ko lënd quoi kenn du la jëf si géew ko léegi gars yi bu ñu ñëwee dañuy toog xaar leen biir Madina bu ñu dikkee fekk ñu fi ñu ne mukk du ci dal dañ génn fekk leen bañ nekk duma leen comme nañ leen dumaa woon daal bee nag mooy ndigalal yonente bàngoo ñaareel ba mooy kar fekk ko fekk te montagne sa xaram ba moo tax mooy ndigal mbokk yi ndigal kilifa mooy ko wóorut wóorut rawatina kilifa bu mel ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam gaa yi ni ko yonent bi ne lu seen xalaat gaa yi ne nañ génn dem duma leen yonent bi ne déet te xam ngeen ni ru'yal anbiya xaq yonent bi ak géntam day tam dëgg la sallallahu alayhi wa sallam gént naa ñu jox man soow man naan ah ba soow mi di génn ci sama jati baaraam yi mu am lu def ma jox ko Umar ibn Xattaab mu ni ko tël ñu ne ko waaw yonent bi nooy biree gént gi mu ne ak diin xanaa diine ju dëgër rek moo tax amar nañ liñ nag sallallahu alayhi wa sallam nga de ak yeneen ak yeneen ak yeneen ah di saxaaba yi dogo ci dañuy génn yonent bi ne ay kat daal di dugg ci biir néegam fi muy solee mbubbam ñenn ci magi saxaaba yi daal ne ñun def nañ ay kat kilifa gu doy ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nañ def nangam ñu ne ko ñun ñii la ñuy defee ñu nañ bàyyi ñu woo yonent bi ni ko génnal léegi bàyyi nañ ko nañ def li nga wax mu ni c'est trop tard c'est trop tard ndax jaaduwul si yonent bu xasee dugg néegam ba sol laxmatahu muy mbubb kanam pour génn dem xare ji mu di ko suñu war laa muy def leneen génn rek waaw bu saxaaba yi génn xam nañ ni moo tax damay ba xala dox ci al fawaid sarbawiya min xaswati Uhud damay wax ni échec bi jullit ñi njëkk a def ci xaswati Uhud mooy mooy ndigalal yonent bi na xeex bi tàmbalee moo tax nañu xam ni bariwaa na yoo xamante ni mi ngi ñu dal ci ay échec fekk mooy ndigal ndigalu kilifa da koy waral jaabir ibne abdillah nee na ñu daal di génn noonu nag jëm fa nga xamante ni moom mooy waxat bi ñu tuddee waxat saxaaba yi xam ne nag def nañ erreur waaye nag mënta ñàkk ñu dem ñu daal di boole waalal saar ak ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci muhaajiroon yi daal di génn nag ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaabir ibne abdillah nee na ci biñ ne suba guddi gi biñ ne suba la waxal sama bàyyi def maa woo déglu déglu bàyyi jaabir allahu akbar te moo ne jaabir da ko jëkk tuub de mu woowaat jaabir ci guddi gi mu ni ko suba moom xam naa ne bu xeex bi démarré man sa bàyyi jaabir la ñuy njëkkare man dama ko dul xaar sax nit naan kii moo ma sa maa ko jox man sa bàyyi moom la ñuy njëkkare moom soo ma dinaa rey kenn du ma rey kenn waaye bu dee dee moom ci ci man sa bàyyi maa ngi njëkk a dee moom xam ngeen kooku bare na lool allahu akbar man sa bàyyi inni araani awwala maqtuulin gadan aw awwal maqtuul man la ñuy njëkk a rey suba waaye nag benn problème la am te yow fi mu ne nii yaay sama taaw bu góor nga xam ngeen ni papa yi jaabeen mooy abdullah ibn amr ibn xiram ay jigéen la ko yàlla woon ko gëloon ay jigéen amoon na juróom ñeenti doom yu jigéen ak jaabeen kon benn doom bu góor la bàyyi ak ay jigéen mu ne ko yëgal ni fi ne bàyyiwuma ci kaw suuf bu yàlla wéyee ak yonenteen muy gisuma lu ma gën a fonk ci kaw suuf ci li ma bàyyi yow mii di jaabeen loolu seede bu rëy la kenn ku ci nekk nag ci góor yi kenn ku ci nekk ci nit ñi sahaada mel ni war naa fexe am ko ci way juróom sa way jur dem ba nga toll ko fii nga xam ne bu yàlla wéyee ak yonente bu wéy te loolu nag dañ koy liggéey de da ngaa yaakaar ne jaabel daa toogoon ne leen nii yéen ngeen ko jaabal na taay rek xëy rek bàyyi am déedéet da koy liggéey de bi loolu amee mu ne ko benn problème laa am ci kaw suuf moo tax ma wooye di la ko muy lan mu ne ko damaa bàyyi ay bor te bor yi laa bàyyi boobu nag dina ci dégg ni ndekete ah bu mën a fexe ba doo am benn bor ba tey wuy ci sa borom day xayru wa afdal waaye ak a jax waaye nag déglul bisaara gi min annabi sallallahu alayhi wa sallam nee na man axada amwaala annaasi yuridu adaaha adda allahu anhu wa man axadaha yuridu islaafaha atlafahu llahu ilayhi atlafahu llah képp ku amee nit ñi bopp te sa yéene mooy man rek laa yàkkamte def pour fay bor bi insha allah yàlla yombala la léegi loo ko fayee man nag foofu sa man laa wax man ak ak yéen kenn ku ci nekk suñ bor yi mën ta fay ba léegi nan tuumaa suñ bopp kon xadis bi loolu laa ci wax man suñ bor yi mën ta fay nan tuumaa suñ bopp maanaam dafa am lu nekk képp ku lépp bor te sa yéene mooy dinaa ko fay yonent bi nee na yàlla dina la yombalal loo ko fayee waaye ku def te fekk sa yéene mooy doo fay yàlla day tëj buntu fay dootul yomb xadis bi dama gis naa ci sama bopp xaw ma nag yéen gis nga yu mel nii maanaam ay ay bind la yoo xamante ni tarbiya bu gaaw la war a def ci nit ki muy muy vérifié war ay defum ay yéene ay nangam di taw di ko suñu war di defal yaakaar naa abdillah nag loolu la dund moo tax yàlla defal ko ko gis nga borom bi li muy bari bari bari da xoolal saxaaba yi xam na ci kat ay ma yéem nga yéemu nag gis nga fi mu nekk nii amal na benn waaye nga yaakaar da koo leboon pour dem aji màkka comme ni ko gars yi defee léegi wala da koo leboon ngir dem jënd benn oto wala comme ñun niñ koy defee nii déedéet xam nga ñoom seeni bor lan la sama njaboot man lekk mbaa sama mbokkum jullit mooy ni ci ay problème ma dem gàll allahu akbar sama mbokkum jullit mooy nekk ci ay problème ma dem gàdd ko yaakaar naa ni yéen a ngi gis abu xataada waaye jooju nga xam ne daa ñëw fekk ñëw bi xamul lu néew néewee ñu jullee mu ñëw taxaw yonent bi ni am na bor ñu ne waaw fay na ko ñu ne déedéet yonent bi xamul gàllam benn war xam ko dara lu xew ñu ne yonent na doon bor bu am néew néew bu am ay bor di ko jullee amu xanaa daw ndax ko ni ko yonent bi li nga def ni mooy lan mu ne ko kii daa am ay bor fayu ko du ma ko jullee mu ne ko sama rek la mu ne ko am mu ne ko maa ko maa ko gàmm subhaana rabbina al aala mbokk yi kenn suñu mooy abu xataada bi tolloon ko dañ ko xam xale yi aaju mun na ko waxal xaw ma ko loolu kese la maa koy maa ko gàddu te amu ko laa dafa bokk na ñëw bi dara de waaye mu gàddu ko am na bëri waaye te suba sa yonent bi dajeeg moom ni ko abu xataada sa waa ji jàll ko de fay nga bar bi mu ni ko kii dama ko fàtte woon ci ëllëg sa yonent bi dajeeg moom muy ñaareel bi yoon ni ko abu xataada sa waa ji jàll ko de xanaa fay boo bar bi mu ni ko soob yàlla doo ma ko waxaat ñetteelu yoon ba yonent bi ni ko maa fay nga bar ba mu ni ko waaw xalal naa ko allahu akbar jaabir ibn abdillah nee na baayam wooba te xista bi xam ngeen suñ ko nettalee benn bis dañoo jógee ci benn xare dañoo jógee ci benn xare dana bañ mos xala xala wala xare yi ni mel jaabir nee na saxaaba yëpp daw saxaaba yëpp dem sama jilim gi ma di ko dóor di ko dóor ci jilim gi lan bougéwul meetar leewatuma baat nee na ma daal di wax ni waa tëpp la umma yaa loolu nag mooy wala xayyaama tey di comme ni boola bi waxee maa ngi ci nekk français yéen bi dégg ko ni waaw koo kan la mu ne ko man la jaabe mu ne ko lu xew mu ne ko man de sama gilim gi bëgg a jaaxal damaa dàq dàq mu lànk yéen bi ne ko yor yàq bu ndaw mu ne ko waaw mu jox ko yor yéen bi dikk daa nekk lànk gilim gi ni bëri te jaabir daa dóor ba gaañ giléem gi giléem gi jug ànd ak énergie boo xam ne nag dem nag bay pourcenté giléem yi jàmbur yi te xoox moo ko taxoon a dox xoox muy sonn nee na yéen sadalam gileem ak sama gileem ñu ngi def nii di ànd bi loolu amee malaat bi yéen saa ko xool ni ko waaw jaabir yow tamit da ngay demee seetu ah jaabir yow da nga mel ni kuy seetu de mu ni ko waaw damay seetu kay mu ne ko kañ nga takk soxna mu ne ko fan yi mu ne ko maa gone nga takk maa gone nga takk yent bi ni ko jaabir ni ko dee takk ma gone de mag laa mu ne ko waaye mu nga war a takk gone nga di ko foye mu la foye moom la borom xam-xam yi di sukkandiku ni ci tànn takk gone mu gën loolu la tekkiwul comme ni ko ñenn ñuy déggee mag kenn du ko takk déedéet saxaabatul kiram dunduñu woon loolu waaye bi loolu amee jaabir ibne abdullah nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ma lu tax nga takk mag gis nga de ay la bi moo tax kon nit ku nekk kuy takk am na lu muy jublu ca la muy takk mu ni sama bàyyi dafa bàyyi juróom-ñeenti doom yu jigéen bi mu faatoo te kenn ku ca nekk gone nga ma ragal ni su ma andee gone mi ñoom kër gi takk te xuna abuy ak wax dëgg xaraka abi tis'u banaatin xurq gone yu xonq sooy yoo xam ne xamul dara xamul sax ni ñuy nettoyé kër su ma takkee gone ni ñoom kër gi tax moo tax ma takk man kala yent yàlla bi ñaanale ñu ko baraka allahu laka wa baraka alayka wa jamaa baynakuma fi xayr kon fekk si na ko dalam def ànd ak loolu ak lam ko waxoon ci tàmbali bi gis nga duróowu jaabir ibne abdillah nee na nag baayam bi muy faatu mi ngi bàyyi ci ay bor lu bare bare bare bare bor yi jaaxal ko lool jaabir nee na bi loolu amee bàyyi ji ni ko amul lu ma bàyyi ci kaw suuf bu yàlla jàllee ko yonenteem lu dul yow yaa ma sa gënal kon kooku liggéey na diggante baayam digganteem ak baayam li ma bëgg nag mooy xam naa ne suba moom wér na ma ni damay njëkk a dee moom bal sax nag saxaaba yi ma waaqit yu bare bari yu mel nii ah koo xam ne danaan suba yàlla bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma dellu seeg anas ibni nabr anas ibni nabr yéen a ko fàttaliku anas ibni nabr di bàyyi tax ci anas ibni malik bal sax am ñu wax ne moom lañ koy tuddee moom lañ ko tuddee muy anas ibni nabr keroog bi mu gisee badara yi xew sa uxudda nii la def waaye nag gis nga bàkku mbaa ndamu mbaa yóotu fitna jëru ko moo tax dafa wax lu simple bu ma yàlla dajaleeg nooni Muhammad suba yàlla dina gis li ma nar a def borom xam-xam yi ne la tax mu wax loola mooy dafa am yoo xam ni surtout fitna jërul ngay tey dem di wax noppil rek ndax yàlla ba nanaan sax nga daw ndax man am nañu ko waxoon te dañoo daw ker yow xam ne la yàlla yan na allahu ma afaal yàlla dina gis li may def daal di noppi te moo ne mën naa am loolu ndax ku dëgg la woon xalat ibni nabro jalal ci otot taw nañ ko ci ay jam-jam loo xam ni sëram bu bokk ak moom ndey ak bàyyi ñëw na ba tiim ko te mënu koo xam ne subhaana rabbina taala kuñu kuñu jam ci ay jaar ba ko bokkal day bàyyi kiim la mënu laa xam ne catu baaraam bi la ko xam ne am ñu ni jaara bi takkoon la doog a xam ni kii mooy anas ibn nako hakada bàyyi jaabir bàyyi jaabir ibn abdillah bi loolu amee mu daal di wax loolu ci oxot ji ndeysaan dañu xëyee nam ko waxee na la ko defee maanaam xaaru sax ñu naan yaa ko song ak maa ko song moom la dem joxe bakkan bi rek am ngërëmal suñu borom moo tax nag ci ngeen yenn sacrifice yi boole ko énergie ba jeex sax inna allaha la yudiu ajra man ahsana amala am na yoo xam ne kenn du ko def suñu borom di ko bàyyi muy neen waaye ma dellu ci waat alxaxar yi léegi pour bàyyi jaabi buñ koy borom defe naa am na solo kon jaabir ibn abdillah nee na bi sama bàyyi faatoo ma ñibbiti sama bàyyi bàyyiwul lu dul ab tookóor xam ngeen tookóor mooy tool yu ndaw yi nekk tool bu ndaw ndaw nekk ci ginnaaw kër gi rek ah Aliou moo war a xam yooyu am na sama xalaat bi moom gars yi daa mel ne ay wo mu ne ab tookóor la bàyyi boo xam ne ay quelque temps tàndarmaa fa nekk te tàndarma ja rek laa yaakaar ci lu ma ko man di fayee te su ma ko dee fay ay at bor bi du jeex Zubayr ibn Awam li muy faatu lu mel ni la defoon bàyyi ay bor waaye Abdullahi ibn Zubayr nee na tegale naa lu mat ñeenti at ak bu jot damay taxaw ne ko sama bàyyi amee ñëwal maa ko gaaram sama fay la ko léegi Abdullahi ibn Amr ibn Hirar bi mu demee jaabir nee na yéen sàngalam ni man lu kat nooy def nag ma ne ko ah man kay jaaxle na yéen tamit ne ko bis bu sàngalama ji ñoree balan sa jaay wala nga def dara woom sàngalama ji ñor ñu def ko ci marbat bi muy fa ñuy denc sàngalama ji mu dem woo yonent bi mu ñëw sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne ko ñi damay ameel ay bor bu ñu bëggee ku leen fay sàndarma nañ ñëw ñu ñëw ñu ngi mel ni ku war a fay ñaar fukki dàmbay sàndarma te li nga ñor li matul fukki daan dàmb ci misaal jaabir nee na ku ñëw rek ñu xayma li leen sama baay ameel yonent bi tibb ci sàndarma ji di joxe ku ñëwaat ñu xayma li mu amoon mu tibb jox la nee na noonu lañu ko def ba ñu ameel bor jeer ma xool jàng bi mel ni dara jub ci waaw te te jaabir nee wax dégg ngeen jaabir nee na su dee tàndarma ji laa ko nar a fayee sax xarit dinaa fay ci ay at laa ci def mu doog a jeex par tàndarma yi ren ji subhanallah moo tax gis nga gis nga gis nga yu mel nii Xuzayfata ibn al-Yamani radiyallahu anhu dafa amoon ay bor ah Abu Umama Abu Umama al-Bahili mu ñëw si jàkka ji laa di toog ñu yokk yokk wax xam ngeen ku ñu yokk yokk wax daa jaaxle yent bi ñëw fekk yent ko ginnaaw daal di door ci mbagg mi ni ko waaw looy def fii yaa abaa mama mu ni ko man de ay bor rek ma jaaxal fi nekk daal ay bor laa bari yent bi daal di muuñ sallallahu alayhi wa sallam ni ko est ce que doo ñëw ma wax la loo xam ne soo ko defee yàlla fayal la kay bor mu ne ko gaaw si yent bi sallam daal di koy jàngal allahumma kfini bi halalika an harami wa ghnini bi fadlika amman siwaak yow su ma ikfini yàlla nañ ma fegal doyalool ma bi xalaalikam ci li yow an xaraamik ba du ma soxla lu xaraam wër ni nii yàlla nañ ma oomal bi fadlika ci say mbinal am man ci waat ba du ma soxla leneen keneen abu umaama nee na bi ma ko tàmbalee ñaan samay bor dafa jeex ba allahu akbar mbokk yi lii jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam law sadaqa ahdun maa rabbihi la sadaqatu llah gis nga jaam bu ci dëggu diggante mag borom suñu borom dëgg ko wan wan ko mu kon am na yoo xam ne nit ki saa bu ko gisee rek naka natt boppam mën na caa tuumaale boppam muy man muy yéen jaame ibne abdillah noonu la nee na noonu la yàlla defee mooy daal di jeex waaye gis nga keroog bi ñu def oxe pour wala ñu ne ku dëgg woon la xam ngeen abdullah ibne ibay ibne salul ci naafeq yi la bokk waaye bi yonente bi ne dañ toog ci madina Abdullah ibn Ubay ibn Salul moom dafa bokkoon ci position yent bi la taxaloon léegi bi saxaaba yi nee nañ génn yent bi ànd ak ñoom dafa mer ci loolu moom naa fekk boobu xam nga lu tax mu mer tabi ak suxaara wa taraka ni ah léegi yent bi gone yi wax ak moom muy dégg seen wax man mag mi may wax muy becce dal samay wax damaa dematu sax affaire naa fekk mu dem ba ci yoon bi retourné gars yu bari genn wàllu saxaaba yi ñu bari ñi nga xamante ni sa waay ñoom bokku ñoon saxaaba yi dañ ca ruuru rek ay ñax yu wow lañ woon ci ñax yu wow ci biir ñax yu tooy yi ñu dem dëpp ànd ak moom ndeysaan afay jaabir ibn abdillah bi mu ko séenee xol baa ngi jeex ñu ngi jooy mu daw di leen dabi daw di leen dabi di leen waa yaa qawm udakkirukum allah alla tuxdilu qawmakum wa nabiyakum inda man xadara min aduwikum ragal leen yàlla ngeen ko ne bu leen toroxal yeneen beeg saxaaba yi mu àndal ñëw leen gaay faale wuñ ko dem mu ne aanakum allah aadaau allah sa yuxni allahu ankum nabiya yal na yàlla tàqaleen ci àll ba yal na ngeen sori yéenay noonu yàlla yi ak noonu yeneen seen bi mu ne insha allah bu yàlla dina leen fegal seeni lor yàlla dina ko fegal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy jësuba sa soobu ci xare bi ak ay jaabir ibn abdillah bokk su ñu jëkk faat ci xare bi radiyallahu anhu wa ardaa moo tax suñu borom bokk ne te lam ko mayee al malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha malaaka yi yëkkati ko ba ci kaw jëme ko ci asamaan sa di ko di ko muural seeni laaf jël malaaka yi jël seeni laaf dox ko ci diggante jant bi ak ay jaabir ibn abdillah jaabir ibn abdillah nee na keroog bi ko xat jam nañ sama baay ay xeeti jam-jam yoo xam ne samay mbokk nanguwuñu woon ma xool sama baay xam ne loolu léeg-léeg mu am léeg-léeg accident dina am métti méttiwaay boo xam ne bu dee jigéen la doo bëgg borom kër gis bu dee góor la doo bëgg bu dee doom la doo bëgg yaayam gis ko nee na ma riir fekk dañ ko muur riir nar koo muri nit ñi téye ma ni ma doo ko ci muree ndax booba ñi ngi bañ ay sentiment jàpp ko te loolu amoon na keroog Hamza ndeysaan Safiya bint Abdul Mutalib lii rek ndeysaan wuti ko yéen si bëgg loon mu xool ko allahu akbar booba xam nga ni ñu ko def kéntaan suñu borom la safiyay dem abdullah doom gi abdullah ibne zubayr ñëw di ko tourné mu kuccal ko suba bi mu topp beneen saxaaba ñëw di mu dolli ko beneen bi ci def di riir wuti ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ni eh nee leen ndaw si yenent bi moo wax nga dëpp mu ne ah bu dee ndigalal yenent bi rek du ma yegg daal di dëpp allahu akbar subhanallah wallahi mbokk yi ñii booy nag seen seen seen ngëm yàlla seen bëgg yàlla kaanu waqaaqina li kalaami illahi wa li kalaami nabiyi xel wuñ mën a daw nag lépp lu xel woo xam ne boo traîné këpp bu yenent bi wax ni traîné rek bu ñu këppoo baax na luñ ko am jëm safiya daal di tourné keroog jaabee ne dañ ma doon nëbbu sama bàyyi ni mel saa bu ma dikkee di ko waaj a muri rek nit ñi tourné ma nee na bi loolu amee dama seen benn jigéen fëkkee fële rek daal di ñëw muri ko nag far yéen bi laaj bi ñu ko muree rek nar bokk xam nga jigéen ñoom ñoom a nekk laaj ay yow rek yow koy takkar naa ndax melokaan bi ni mel bi loolu amee yéen sa daan daal ne ku yóbbu am na riwaay yu ne mag la ci Amr ibn Hiram am ñu ne doom la ci moom wa ala kulli bi loolu amee yonent bi ne wali ma tax ci yow fii la lu gar jooy looy jooy mu ne ko fama zalat al malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta ruja looy jooy yow kii lim am kay daa jar jooy malaaka yi ñu ngi koy bi mu yëkkati ko ruugi bi mu yëkkati ko jëmm ji bi mu tëdd malaaka yi ñi ngi jël seeni laaf doxale ko digganteem ak jant bi ngir mu ruugi di yëkkati am na beneen riwaaya al imaamu nawawi rahimahullah ci riwaaya bii sax moom daf daa wax ni ah malaaka yi kat dañ ko doon niiral noonu ci kaw ngir bari waaye bu ñu bari ñoom malaaka yi ak seeni laaf ngir dégal ko mbégte mi koy xaar suñu borom wa illa ngir ñu dox digganteem ak li nga xam ne suñu mooy tàngooru jant bi ngir di ko xeral te lii bokk na ci karaamaat yi gën a rëy yi nga xamante ni saxaaba yi am nañ kon jaabir ibn abdillah mi ngi noonu jaabir ibn abdillah radiallahu anhu am na ci ay may suñu borom yeneen wala abdullah ibn amr ibn xawaam muy papay jaabir yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na ci riwaaya boo xam ne jaabir nee na lamma qutila abdullah ibn amr ibn xiraam yawma uhud qaala yaa jaabir alaa uxbiruka maa qaala allahu azza wa jalla li abiik qultu balaa qaala maa kallama allahu axadan illa min waraai xijaabin wa kallama abaaka kifaaxa yonent yàlla bi nee na jaabir est ce que doo ñëw ma wax la lan la yàlla wax sa baay allahu akbar xay ma wax lu yàlla wax sa bàyyi mu ne ko ahan kay ya rasulallah mu ne ko yàlla waxul ak kenn ci jaam yi lu dul dafa dox doxale kiiraay sa diggéen wala mu wax yu la loolu nag comme ni ko borom xam-xam xadis yi waxee nag mooy baadal mawt kallama abaak baadal mawt amma fil xayaati moom balaa léegi si dund gi moom suñu borom defalu ko kenn waaye baadal mawt nag jafaaka jaabi fekk la ko defal muy suñu borom wax naag sa baay moo sunu borom lu mu wax ak bàyyi jaabir sunu borom dani fa may jaabir sa man na waxal lan nga bëgg man sa borom ma defal la la hawla wala quwwata illa billah tamanna ya abdi tamanna alayka u'tika yow sama jaam bii di abdullah ibn amr ibn hiram waxal lan nga bëgg ma defal la ko loolu de mooy tolloog nag am al asla ñuy waxoon yonente saa sallam yonent bi jublu guddi rek fekk mu defaral ko saxala yo xoosam ko sotti te defaral ko daal la yonent bi ni ku def lii ñu ko kaab moo ko def mu ni wool leen ma ko mu ñëw yonent bi ni ko sal waxal lan nga bëgg ma ñaanal la ko yàlla léegi te yonent bu ñaanee rek yàlla def ko loolu ñu nag dégg nga mbokk maa ngi ko daal lu mu ne te boobu daa ñàkk bu amul lu mu lekk allahu akbar sal billahi aleykum waxuma sax ñàkk ba amul loo lekk kan ci ñun mooy ku yonent yi woo di la wax lu mel nii waxal bu doon mën a maa mu nekk yéen da nga fay lim loo xam ni sa waay jégg nii ak xam mën a sotti kaab nee na ma dawale sama xel mi wëndeel dawale waat wëndeel xool àddina ma xool kullu maa fi dunia dellum saa yi léegi àddina bi yëpp buñ ma ko joxoon day jeex kon bëgguma loolu yéen tamit ne ko gaawal ma ne ko asaluka murafaqataka fil janna damaa bëgg boo duggee àjjana foo dugg ma dugg mu mel ni affaire bi dafa yëg si yéen ci ci ngekkeel ndax amaan na mi ngi doon yaakaar waa ji wax leneen lu dul loolu moo tax mu ne ko awa xayra daali xamoo leneen lu dul loolu mu ne ko soxla yëpp loolu kese la ku amul loolee amoo loo sol nekk surga ak surga ci biir kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne la waxal lan nga bëgg ma ñaanal la ko mu ne asaluka murafaqataka fil janna loolu in dalla ala shay'in fa innama dalla ala ishtiyaqihim ila dukuli jannati rabbihim xër gu mu xëroon ci tàbbi àjjana seen borom ci moo leen gën a lu mën a xam ne de yonente bi ne ko a'inni ala nafsika bi kasrati sujud danga ma dimbalee bari looy sujud moo tax borom xam-xam ne kon bokk ci li gën a mën a may nit ci àjjana mooy bari looy sujud di julli sunu borom mu ni ja papay jaabir waxal lan nga bëgg ma defal la ko papay jaabir ni ko lenn rek laa bëgg nga defal ma ko mooy nga delloo ma mel ni ma meloon delloo waat ma ci kanamu yonent bi ma di ko defaat ndax paree gu ma sunu borom def la hawla wala quwwata illa billah defaat ma mel ni ma mel delloo ma ci kanamu yonent bi ma di ko defaat ndax kat paree gu ma sunu borom ni ko innahu sabaqa minni annahum ilayha la yarji'un dogal bi jiitu na ba noppi ne ko xas ba dee doo delluwaat waxal leneen mu ne ko soxlaatuma dara subhaana rabbina al ala soxlaatuma dara xanaa leen mu ne ko lan mu ne ko nga wax ña def ci sama gannaaw ñi ñëwagul mbégte mi leen di xaar ci seen borom buñ dajeeg moom ba bu ñu faale dee gi ñuy dee am ngërëmal seen borom moo tax aaya ji wàcc ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون sunu borom wàcc surtu Ali Imran sunu borom ne wala taxsaban bul yaakaar mu alladina gaa ñi nga xam ne qutilu fi sabilillah dañ leen a rey ci yoonu sunu borom bu leen yaakaaree mukk amwaat lañoo dee déedéet bal axya muy li ngay dund عند ربهم فسير برم يرزقون من الورتقل فإنك فرحين بما آتاهم الله وتنور ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم هاي علماء التفسير dañuy wax ni loolu mooy sabab bu wàcc maanaam waxal ñi nga xam ne ñoo nekk ci yonente bi ni bu ñu faale loolu def naa yéen a ngi fàttali ko saxaabiyul jalil ah nga xam ne bi mu tolloo fi axiri ramaqin min xayaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni dem leen ngeen wëral ma ko ba xam ci lu nekk saxaaba bi ñëw fekk ko mi ngi nekk ci catal sukuraat nga xam ni fekk ba dee tee mu faat mu ne ko maa ngi lay jot li nuyoo bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko maa yonent bi jàmm ko dal mu ne ko waaw waaw mu ne ko yàlla bu yàlla barkee la te lu ngeen di def bu fekkee sàggan ngeen ba yonent bi faat te fekk yéen faatu ngeen yéen bi mu waxee kàddu googu rek moo nekk axir kalima la defa xoolal ñooñu kon fi ñu àggoon ci am mbégteem dajeeg seen borom am ngërmande maanaam loolu su amee lu mu ciy jàngee mooy gis nga ñoom loo yaakaar ni am ngërëmal seen borom jaral na leen ko xamal ni jaral na leen lu ko moo tax bi mu faatoo borom bi defalaat na ko beneen gis nga al malaika hulu bi ajnahatiha ñaari mooy kallamahu rabbuhu ibaaxan ñetteel mooy bi mu faatoo yonent bi saa sallam daal di gis ni papa yi jaabir bu xaw a dikk doomu la am lim ni dem ko jool la yonent bi ni gudda leen sax mi comme ñoom ñaar ay wólare lañ woon boole leen leen ci benn bàmmeel suul leen jaabir ibni abdillah mooy nent bi nee na biñ leen suulee dañoo boole mbooloo ko bari suulandoo ci ay max boole ñeeg sama baay nee na bi loolu amee ni ko am na benn riwaaya dafa indi ni juróom benn weer laa toog juróom benn weer gis ni daal liñ doon boolee ñëw yi di tëllëf tëllëf daal ak ni ma fonkee sama baay nee xew ma loolu xaaral ma dem sulli ko defaraat ko riwaay boobu nee na bi mu ko sullee ñi ngi fekk dara yàquwut mu ne moom wajatu xari ala xabri wala fi xabri yi kan naa yi mu ne maa ngi fekk sama baay ci biir bàmmeel bi mu tëdd mel ni ku doon nelaw dara yàquwut ci moom ci riwaay boobu juróom benn weer am na beneen riwaaya boo xam ne ibni saadin moo ko génne ci ak tabaqaat al imam ibn al jawzi mi ngi koy nettali ci sifatu safwa ak sifatu safwa ci riwaaya bu wér la nee na jamonoy muawiya ibn sufyan dañoo demoon ba waame mi ndox mi waame mi moo dem ba yàqati arna yi faal ko ñu gis ni kon fii barabu ndox la wala jaarukaayu ndox la nañ toxal arna yi nee na biñ koy doxal ñu gis ni comme dañ koy doxal faw ñu sulli néew yi ñu commencé di sulli néew yi nekk ci ndox mi di sulli néew yi pour doxal leen jaabir mooy nettali nee na فرأيت أبي في حفرته كأنه نار nee na maa ngi xam bañ tuuloon sama baay ma ne ko moom lay xëntiyoo sulli ma sulli ko mu ne nit ki kuy nelaw mu ne wama taxayyara min xaalihi shay'un dara soppeekuwu ci aw yaramam mu ne wa bayna dalika sittun wa arbauna sana diggante keroog ba xam ak keroog bi ñu leen déplacé ñeen fukki at ak juróom benn dox na ci diggante bi mu ne maa ngi fekk sama baay mi ngi ne dara jëlu am na beneen riwaaya dani bàyyi ji dafa gaañu woon ci tëbi nee na mu jël loxo bi teg ko ci tëbi noonu lañ ko suuraale woon maanaam noonu ni mu mel nii ni mu taxee ci ci ci kanam bi nee na biñ ko sullee di ko defaraat pour suuraat ko bi ñu teggee loxo bi deret ji dañu sar te ngeen fukki affaire juróom benn ne deret ji da doon sànni te nangu wala bàyyi mu ne loxo bi lañ jël delloo waat ko fan ko jëlee woon deret ji doog aaya الله أكبر لا لها من كرامة سيدنا العلامة ابن تيمية رحمه الله di wax bàyyi leen ci xel ابن تيمية رحمه الله soo delloo ci téeréem boobu alfurqaan bayna awliyaa illah wa awliyaa shaytaan am na ca benn par benn benn bunt boo xam ni dafa indi karamatul awliyaa bii fa tudd na ko ci wane ni maanaam sax bu leen bàyyi xel ni buxaaba yi bàyyi leen xel ni bu xaaba yi danañ am ay xeeti saytaane yu leen di suñu borom di jaayee waaye nag inna lil aw li awliya illahi la karamaat wàllu yi suñu borom yi suñu borom da leen defal ay karama yu rëy waxoon naa ko sa mawdu min al qaabidati ala al jamar ah wala seen nisaabu kala ah comme ni nga xamante ni wàllu yi saytaane am nañ ay xuzaabalaat noonu la wàllu yi yàlla yi amee ay karamaat lu am la lu gën la léegi nag ñun problème bi ñu am mooy nuroo bi mu nuroo bu xaabay li ñuy def lu seen nit xam nga lu mu nuroo lu baax kenn moo baax boo xam ni ñu baax ñi ñoo ko doon ñu dem ba yàgg musiciens yi dugal ko seen nga jóg ma ko waxat déedéet dëgg la ku bëgg mooy defal na ko def waaye nag taxut ñu moom ko def gis nga yàlla subhanahu wa taala baaxee na nit ñu baax ñi nga xam ni ila yawmina haada nag daf koy def daf tey suñu borom ñu koy def ila yawmina haada ila laylatina haadihi wa saatina haadihi gis nga nit ki bu dëggoo digganteem ak boromam min naaxiyati waraahi wa ixlaasihi wa zuhdihi wa karamihi wa ibadatihi wa taqwaahu wa tarki lmaasiya wallahi yàlla dama ko defal ay karamaat yoo xam ne ci teg bëtëm loolu mi ngi am ba tey bu ko kenn dàq ba tey day am waxuma bàyyi ba nga paas suñu borom dina ko defal ngir ci xayaati ka ci sa dund nga ñaan léegi yàlla may la ko léegi léegi nga gis nit kon la léegi yàlla xarak ko léegi léegi léegi nit ñi gis li am aajo léegi jug di ko dox yàlla yombalal ko ba yéen ñi nga àndal yooyu yëpp suñu borom li nga koy def ba tey lii nag wax ji ngir nit ñi bañ a découragé jàpp ni lu ñu wax lañ jàpp saxaaba yi yéen d' accord saxaaba yi kenn du mel ni ñoom boo sarate woon lu toñ dog montagne oto ci ay or benn saxaaba dem tibb nga ba dugub ci biir saakoom sarate ko moo lay ëppale ci yàlla ko yàlla benn waaye bu jëloon suñu jamono ji soixante cinq milliards xam ngeen soixante cinq milliards ni mu bare nga dugg ci àddina bi tabax ci ay ay ay mbir yu yàlla gërëm yëpp benn saxaaba dem tibb ca dugubam jëm nar a kaw sarxe ja moo lay ëppale ci yaaba yow mi saraxe soixante cinq milliards wa ak sar sax nag sax wala na fi faxu sax sax nag yéen bi nee na bu becc beccaloon loxo bi ba nub bi wàññeeku sax nga xam ne lim tibb ci dugub tuuti la bu ko saxee sax moo lay ëppale waaye nag bu tee ngir yaa ngi ciy def ba léegi nag suñu borom subhanahu wa taala dafa am ngeen yoo xam ni sunnatuhu fawqa al ard mooy wala yansuranna allahu man yansuru loolu moom nga damaa buntu doon joxe ay misaal yu bari ci yoo xamante ni dund nañ ko gis nañ ko nit tooñ nit nga tàllal say loxo ñaan ko yàlla ci guddi gi mu xëy baax te dara dara maa baax baax bu bon sax maraatin wa karaat nit ñi teg nañ ci seen bëri te boo seetloo nag nattukaay ba nga tey mu ci jox naa la ko imaamu Shaatibi rahimahullah ñu koy wax ci al i'tisaam boo gisee benn waay muy naaw ci kaw jaww jeeg leneen ku laay ci ngelaw le teg ko feesam ak di wax di ŋànk di xar di jax sawaraat di jax ay pusoog jax ay lancat ak yooyu mu ni loolu lépp bu mu la yéem bul ko sax a xool mu ni xam nga lan nga war a xool xool ko fan la toll ci alquran sunna nee na boo ko xoolee su mu toll ci alquran sunna muy lu kaye xamal ni kii yorum ay taxale day teel taxale sax dalul def loolu xam na waaye nee na saa boo ko xoolee fekk ku sori la alquran ak sunna mu ni xamal ni kii li mu yor ay xuzaa balaatu min ashaytaan nit li nañ ma ci jamono yii paase sama way juru góor moo ma ko nettali koo xam ne ku nu jege la ci wàllu mbokk ah ak góorgóorloom ci diine ak ni mu mel te ku ñu xam la loolu nit ñi teedal nañ ko ñu jamonoom teg moom benn waaye la dajeeloon ci jamonoom waa ji turu siiw la yore su ma ko tuddoon du ñàkk buñ ko xamul sax des na ko mos a dégg waa ji dafa saay saayoon na saay saay ba boo ko mutaan a kooy dafa defaroon benn lënd lënd boo xam ci liñ wax ci lañ wax lënd bi daru nit la ko defaree ci liñ wax boo ko mutaan a kooy dana na yow tinis moom du la fekk bu tamit day bëgg a jot lënd bi lay dëgg rek moom yow pare nga yow te lii ay nit dund ak moom ñoo ko nekk lii ki ko ko nekk li moom man xam naa ko bi loolu amee mu joteeg waa jii may wax te bi mu joteeg moom waa dëkk bi yëpp dañoo ñëwoon di ko tinu ngir nga dem baalu ko parce que kum ko mën a def jeega bi loolu amee mu ne moom du dem baal bu fekkee li mu jàng gëm na ko du ko baal ndax koo ni bi timis di jot nit ñi dañoo fees benn biir këram ñëw di ko xool ci ngir dañ doon xaar mu dee ñu ñëw fekk ko mi ngi toog ferantulaay ba mu doon dundee gis nga bi ñu dugg ci ci waa ji ba mu doon tëggee ndënd la ci tàng tàng bi dañ koo fekk dafa funcee funcee funci dee ba saximaarin maa dafa ko fay gis nga de kon yooyu ba tey gis nga am na ñoo xam ne ci àddina ci dund bi boo leen di war léegi léegi yàlla war na boo leen di tuumaan léegi léegi yàlla def la loo xam ne kenn mus koo gis kon yooyu ñu xam ne kon borom bi subhanahu wa taala mi ngi koy def ba tey li mu laaj nag mooy nit ci góorgóorlu faman sadaqa allahu sadaqahu allah muy ñaan suñu borom mu defal ñu koy fii dunia wal axira kon kooku mooy abdullahi ibn amr ibn haram di bàmbay jaabir ibn abdullah yàlla yàlla defal ñu tawfiq dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain